lu lu tasaaroo fii la ngir taalibe yu bari ñëw nañu fi indil ma journal bi jàngal ma ko wax ci seenu naqar waaye loola moom la ma ca tontu ñëpp moom laa bëgg ñëpp yëg ko fu fi am taalibe ne na yëg ne loolu moo ngelawayam moo dara yam man ci sama tuuru bopp man lu nit mën a wax ci man woyof na ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lenn lu may di taalibe bi Sëriñ Tuubaa bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëmam dolliwuma ci dara ko nag Euh, lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko koo jégal ndax du man du kenn du ma lenn wàllu sëñ Tuubaa itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu ngeen yóbboo def ko bànneex te bañ koo defu naqar ngir dara mënu ca juddoo lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu ne defees na ko ko mësta tontu ci menn mbir mësta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu mës ne ci loxol yàlla rek la ko mës a bàyyi yàlla def ca ram ca war a def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 léew ak man moo ak léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind bindee ñoo yam képp isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu min ilahi salaba su ma sàkkoo ci yàlla lu ma ko ñoddi mu daal di dikk fa saasa lu may jañee fa saasa mu daal di kon nag loolu doy na firnde ci ne yëngatu ci lenn di ko jéemal def wax bëgg foofu fii ma ne ñu nekk fi ni man loolu rek am solo kon nag nun ñii itam ñëw ci li nu seq li nu seq moo di diine ji nga xam ne yàlla nee na mooy diine fa moom ak réew mi nga dañu see juddoo te jamonoonte yooyu yaar la ñu seq kon nag loolu bala ñu see mën a jëriñoo lan dana koy takk ni ak bu mu mu mel ni aw say foofu nu ko ne cirib bu fa buntu waree ubbi ko loolu mooy li wér moom la ñu war a def bu ñu ko defee ba àggal nag dafa am lu ñu war a sàmm ci biir loola moo di li yàlla digal mbooloom jullit mu ànd loola loola loola moo di wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal hudwaani di dimbalante ci aw yu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale